loolu nag dafay benn loolu dafa yoon yëngal leen ñu ñëpp mën na ko Faça pressão e vai Faça pressão e Jorge, Jorge vai Ah, d'accord. Se não for já eu vou. Ah. Sebagai diri, sebagai diri, sebagai diri, sebagai mana, sebagai mana. Sani s'il te plaît ngeen tax na ñu Sani s'il te plaît ngeen tax na ngeen tax na. sama waa kii laay ñoo koy seetlu ñoo koy seetlu par naa ko wax kenn ku woon ñaar ak kenn kenn ku ko waaye lépp naa ko leer. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci biir waaye bi daal mooy mooy bi ñu def ko ñoom xaw ma xaw ma xaw ma man bu sànqal may nekk rek xaw ma baax na dégg nga. non non bi nekk ci kii bi mooy fi ñu jëlee. waaw

je vous remets la quittance relative au dépôt de votre chèque de 30 millions pour l'élection pour présidentielle 2024. Toutefois, je tiens à préciser que conformément aux dispositions du Code électoral, euh, cette quittance n'est que provisoire. Après l'encaissement effectif du chèque, dans trois jours, euh, euh, une arrestation euh, signée par le directeur général vous sera délivrée. Et cette une arrestation qui, est, qui fait foi au niveau du Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est un titre provisoire. Et je vous, encourage, Merci. que... Euh, bonne chance Merci pour de la Caisse Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. beaucoup.

c'est Ok, c'est bon, Voilà, bon, bonsoir. Euh, aujourd'hui, nous sommes là à la Caisse de dépôt et de consignation. En tant que mandataire je viens déposer, je viens de déposer tout de suite notre chèque de la grande coalition Passe-Passe dirigée par le, président Mohamed Ben donc pour

l'économie, l'élevage, l'éducation, rien ne bouge actuellement. le président Mohamed Diop après avoir fait ce constat il a mu pour Europe sur Sénégal pour réunir jël Sénégalais pour changer le Sénégal sur tous les plans voilà son programme est très vaste d'espoir pour sauver le Sénégal actuellement merci jërëjëf suñu Ousmane euh, kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Maïssa Gueye bokk ci coalition euh, Pass-Pass Cheikh Maïssa ñu ngi lay siyaare. ñoo ngi lay siyaare Serigne Saliou di sant yàlla bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu waa Sénégal di wax alhamdulilah rabbil alamin ba nga xamante ni yegsi nañ ci deuxième étape. ndax première étape bi ñu àndoon ak grande coalition Pass-Pass ànd ko président Mouhamed Ben Diop étape bu njëkk bi dañoo waroon Sénégal yëpp wax na ni bëgg nañoo bokk ci joŋante yi jëm. pour jël réew mi liggéeyaat ko delloowaat ko Sénégalais yi ni ñu ko bëggee euh, deuxième étape bi nag la ñu waxoon Sénégalais yi lan doon ñëw di di ko dëggal si tey indi sunu fan fanweeri million ñoo déposé ko tey ci kees bi nii ba jël sunu quittance nii mooy wane tey lan doon wax dañ ko doon wax waaye tey dëggal nañ ko pour bokk ci joŋante yi jëm. gërëm gërëm bala sama kàllaamaam leer mhm. doublon yeeg hmm. loolu sant nañ ci yàlla bu baax passé étape moom ñu ngi koy ñaan suñu borom ndax galgal yi bëri na waaye bu dee ci li nit xam wuti nañ am nañu loo xam ne bu ñu ko laajee juróomi yoon ñu joxe ko te xale yi vraiment am nañ équipe boo xam ne ñu ngi ci logiciel di ko liggéey liggéey bi nga xamante ni noonu lañ ñu ko laaje ci li nit xam bu fekkee li nit xam dong la sant nañ ci yàlla bu baax dañuy jàll ak suñ ko yàlla dogalee waaye parrainage moom bi nit ñi di jug di def leneen wër nañ Sénégal ba am ay parrainage yu bëri ndax suñu premier dépôt parrainage rek 121 800 la woon bokkul ak li ñëwaat ci ginnaaw yëpp kon ñu ngi koy liggéey ci xel ak ci sago bu njuumte amul dara amul te yàlla dogal ko dañuy jàll parrainage dem ci joŋante yi jël Sénégal nag liggéey ko ni ñu ko war a liggéeyee comme ni ko Sénégal yi bëggee. ñu bari dañuy wax ni Mohamed Ben sénégalais yi xamuñu ko bu baax loolu est-ce que du nekk handicap bu ñëwee ni day bokk ci joxante yi nga xamante ni non mënul doon handicap da nga naa ñenn ci sénégalais yi. xam waaw ñenn ci sénégalais yi mais waaw ñu ñu si ëpp nag xam nañ ko ndax xam li tax loo ñu bëri xam nañ ko te incha allahu rabbi bu ñu demee ci élection yi dañ xam ni parenage ak ñi voté bokkul bi gars yi dàq parrainage dàq nañ présence mais uti nañ votant te dinañ voté dinañ gagné incha allahu rabbi bu ko yàlla dogalee. am na mu wax ci ndaw ci euh, kàddu ndaw ñi ci parti Pass Pass nga xam moom mooy président jeunesse bi Thierno ñu lay fay di sant yàlla bu baax ci yombalal bi nga xam ne tey may nañu ko ci processus électoral bi nga xam ne nii moom la ñu jëm incha allah 2024 ci étape bi nga xam ne nii muy dépôt caution tey jii yàlla may ñu possibilité ñu déposé ko di ci sant di ci gërëm également ñëpp ñi nga xam ne nii jàpp nañ ci liggéey bi ba yegg si fii tey looy wax ndawi Sénégal tey ci li nga xam ne ngeen fas yéene ànd comme ñoom ci Sénégal. waaw lu ñu di njëkk wax pour le moment mooy nañu préparer ñi nga xam ni déposé woon nañu seen i carte électeur ñu dem jëli préparer également continuer ba tey di parrainer li nga xamné moy grande coalition bu pass pass donté ñu ngi ci liguey parrainage bi danaka paré nañ. comme tay ji nuñu paré ba ñeu andi suñu caution donc non lañu paré ci parrainage bi di leen ci invité à ce que ñi nga xamné 2024 nous jëm élection le bon choix une grande coalition pour passe pas ci ko le président Mohamed Ben nous choix au-delà de sa personne parce que ñaari mbir homme d'État c'est son parcours et son discours tay buñu son parcours tay machallah mu CV riche étant jeune mu capitaliser l'ol noonu yëpp donc suñu xel daf ci gën a dal leneen li également mooy son discours discours bu muy andi mooy discours yar discours teggin discours développement tey jeunes yi tax li tax jeunes yi tey euh, mobiliser wu nekk ci ginnaawam fas yéene ko jàpp pour 2024 inshallah vingt quatre incha allahu rabi. ah asalaamaaleykum ah, ñoo ngi nuyu ñëpp ah, di ziyaare ñëpp di sant yàlla bu baax ndëkk Euh, di jiital ngërëm gi aussi suñu président parce que yokk nañu fit parce que dañ naan maa ngi nii kuy nëbbu du ko wax te yaakaar naa ne kuy làmbatu xamoo fa nga jëm fii doo fi taxaw te doo indi sa cheque déposé ko ah. donc fa mu jëm xam na ko ñeme na ko ah, yokk nañ confiance bi ci moom gën nañu laxasaayu wan ko ne ko daal ñoo ngi ci ginnaawam di invité aussi euh, sénégalais yëpp ñu xam ne le bon choix président Mouhamed benn Diop la parce que xam na fu mu jëm làmbatuwut di wax tamit au nom de toutes les Linguères que ñu ngi invité ñëpp si suñu parti ñu ñëw jàppandoo liggéey génn sénégalais yi si coono bi nga xamante ne si la ñu nekk waaw loolu daal mooy suñu message.